gaañ leen audio yii déglu leen audio yii lii doy na lii bu commencé am lii tiit laate na déglu leen audio yii maa ngi leen di maa ngi lay nettali fii benn pèlerinage boo xam ne moom la waa doon daf tey ñooro maanaam dañoo wax ne dañoo indi benn téléphone da nga leen di jox téléphone bu ndaw ak quinze mille ak sa dentité ñu jox la ñu jox la téléphone digital tey eh, nag bu paree nag sa daan sa daante bi moom lañuy pare parrainé Amadou Ba billahi wallahi wa taala nii may waxee yow ni man maa ko tiim nii ñuy parrainé ci parrainage su Amadou Ba jël téléphone ma ndaw ba ak quinze mille ya jox la téléphone digital ay jigéen ñu bari tey def nañ ko lii man maa gis tey waaw lii barke alquraan karim yi léegi laa fa jógee ko billahi wallahi ñooro si bentengi bentengi barke alquraan karim boo ñëwee bentengi bi mooy bitik orange boobu yaa ngi jàkkalo bitik waa orange lañ ci lëkkaloon nag waa orange ñoom lañ ci lëkkaloon waa orange ñoom lañ ci lëkkaloon mais kii du parrainage nii asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences euh, ginnaaw ban boo koy déglu xale yi loolu ñu wax xale yi loolu ñu wax lu ko ëpp am na lu ko ëpp am na malheureusement li ñu accepté dugal ko ci réew mi du son aada parenage culture maçonnique la franc yi ñoo ko def pour seen culte yi ak bu ñuy seddoo wala ñuy séddale nga xam ne ko am nombre bi yaay am lii ku am nombre bële yaay am lee ci la ko framason yi introduire seen culture nu forcé nu ko pour diviser la Sénégal parenage amut solo amul njëriñ sooy xool parenage ay élection la daanaka ak élection élection yoo xam ne da ngay dem wuti ay nit indi te ñooñu ngay indi daanaka ab carte d'identité ngay joxe ñu xoos ku seeni borom amul vérification amul dara waaw bu fekkee ne neex nga leen noo ñi la nombre ba nga xam ne moo nga bëgg bu fekkee ne neexoo leen ñu bind la nombre ba nga mën ba ba bëgg ci yow Sénégal yéen a ko war a dindi yéen a ko war a dindi parrainage bi amul njariñ parité bi amul njariñ parité ak ak ak ak parrainage du yëfi jullit du yëfi chrétien ngir yàlla bu fekkee ne da ngeen a bëgg réew mi bëgg nit ñi sawar bëgg activité yi continuer yéen ñoo yéen yor politique bi da ngeen di góorlu def yëfi nit. du leen Macky Sall woo rek ngeen wuy déedéet parenage dama ne moo gën a garaaw ay élection parrainage moo gën a garaaw ay élection te amul benn contrôle benn contrôle amu ko waaw parti au pouvoir day dem ba ci morgue bi ña dee woon daaw jéeg seeni carte d'identité jàng hôpital principal ñëpp la ñuy jël jox Amadou Ba ñi réeroon ñu déppoon seen carte d'identité di leen wër ak carte d'identité yi réeroon yëpp nekk police yëpp dañuy ëmb jox parti parti au pouvoir ngir yàlla yeewu leen ku sab carte d'identité réer for nañ ko ba Amadou Ba pare ne ko ndax objet retrouvé dafa am boo demee police carte d'identité ak passeport réer yëpp ci saako lañ koy sol yóbbul du Ba parrainage dama ne moo gën a garaaw ay élection ndax boo ko jàllul doo bokk ci élection yi pourquoi parrainage amul benn contrôle amul benn contrôle yow da ngay dem orange orange may la benn plus rek jël sa carte d'identité wala may la benn portable jël sa carte d'identité te waa kër Sonko yi ku parrainé ku parrainé joxe cinq mille wala nga joxe deux mille gën ngaa bon mille gouvernement bi xam ne xale yëpp Ousmane Sonko lañ àndal mu bi yoon Nicaragua bii li ci dee kenn xamul lu mu toll di jël xale yi def ci géej gi pour bëgg leen a wàññi ñi dee ñi dee képp ci géej gi mën nañoo pare ne ab candidat ñëpp gouvernement bi jël sacrifié leen manifestation yi lim ci rey kenn xamul lu mu toll te le Niger a fait un coup d'état sans mort sans mort un coup d'état sans Sénégal it une manifestation di ci dee ëpp na junni Macky ji lépp sànni ci géej gi ngeen nangu ko parrainage bi aussi amul benn contrôle benn benn yow daal sab saako nga yor yor sab xaalis ko ni dut mille francs mu jox la d'identité ah bu ngeen ne Macky mënta sàcc élection waxu leen dëgg dama ne bu ngeen ne Macky mënu koo sàcc waxu leen dëgg premier tour premier tour bu ngeen dof dofloo premier tour laa la wax de Amadou Ba jël ko ñu tasaare ci dëkk bi ay alkaati ak i gendarme waaw Ousmane Sonko mii daañu ko génne Ndakaaru léegi daañu ko fi génne léegi léegi léegi te du yàgg ba Dakar dakaar dal ndax dakaar dal loolu muy seeni projet ñu bokk ci mbir mi xamal lan na ci lu baree baree bari Ousmane dañu takki bagaasam sànni ji ko ca àll ba bu ko defee ndakaaru féex nit ñi mën a def li ñuy def Amidou Ba munu fee matal Amidou Ba amul un million de amu ko du dëgg dañuy fen musuma gis ko rang ko rang di Ba amut Amadou Ba fu mu leen di parrainer ko yuuxoo te moo jëkk a matal jomaay il faut nga nekk ay nit ci parti bi laa bokk damay bokk dafa war a bokk du bokk ak kee war naa bokk ci yooyu ngeen ne ñoom ñu ne ci yor seenub saako wër di nangu carte day njàmbur di ci def ña demoon màkk ñi bindu joon màkk laa wax ñi bindu joon màkk joxe seeni carte d'identité dafa disponible dafa disponible ci état bi dafa disponible ci état état bi même néew yii dee nii ñii dee ñu for seen identité xale yi deeñ for seen dante ci géej gi for ko yooyu yooyu yëpp Amadou Ba ko wax mu pare nee ko ngeen xam ko naan kenn du mën a sàcc kenn du ko sàcc day bokk day bokk mais booy bokk da ngay bokk ci lu legal mi faut être honnête da ngay bokk ci pare da bokk booy bokkee bokkal ci lu légal Macky Sall c'est un góor goo xam ne il est fier quand il est hors de la loi Macky est fier quand il est hors de loi il impose ses droits ba boole boole di duma ak di tej dof bu mel noonu dof bu mel noonu organiser élection ah mënuñu ànd ak xel ah mais damay bokk day bokk ci bokk danañ ci bokk ñoom yor seen saako di soldanté rek Amidou Ba mu ne matal na te matalul Amidou Ba amul trois parrainages amu ko ñetti mat amu ko day fenn te mu ngi lijjanti na lijjanti na ba bokk lijjanti jël réew mi day yomb ci moom du dara ci moom dama ne ku lijjanti ba jël parrainage te amoo ñetti nit. boo man ngaa foqor ci élection yi dëgg la te Macky foqor ci na fi ay élection te élection yàgg nañ koo foqor ci élection municipale yi passé rek dane sonk doo bokk yow assemblée doo bokk sonk ngi bokkut te waroon a bokk ki ko ne doo bokk te Sonko am droit bokk mun ne ko doo bokk te sonk bokkut kooku bu dee mën naa sàcc élection yi gëm leen ko Macky mën naa sàcc élection yi te buñ dof dof la dana ko sàcc ndax amuñu fulla waaw man xeex laa mas wax xeex laa mas a waaye jamoo ji dëkk bi ne tekk ah may samay calcul toog ah xool parrainage bi ni mu demee ak ni mu tëddee càcc gi mel lu ab yaaboo bu tuuru ci marché ah te amuñu benn police police su parrainage amuñu kenn ku ko mën a lijjanti ah fraude boo xam ne si ñëpp ci teg seen bët une fraude flagrante ah ngeen di da ngeen gañee élection ah, bu nax suñ bopp coono bii. bun ko nangu buñ ko nangu parrainage bu ngeen ko mënta contrôler bu ngeen ko mënta contrôler mun leen a contrôler élection dama ne parrainage bii bu ngeen ko mënta contrôler mun leen a contrôler waaw te gouvernement bi mooy contrôler parrainage bi te gouvernement bi moo yor le matériel électoral gouvernement bi moo yor xaalis bi nga xam ne réew mi ko moom gouvernement bi moo yor soldats yi ak ministère de l'intérieur ak gendarmerie yi gouvernement bi moo yor kaso bi tribunaux yi gouvernement bi moo seet lu ko neex mu def ko réew mu mel noonu nag nga bëgg appliquer une loi électorale du dëgg dañuy nax suñ bopp dañuy nax suñ bopp waaw dama ne buñ jógut buñ jógut lijjanti lii lijjanti lii da ngeen torox ci bopp lañuy def dama na torox wala dafa ne torox tànge buy door day neex fii ne kenn ku ne nga yor sol làmmiñ wër di wax di campagne lu ne nga dugg ca te poos bu bënn poos bu bënn nga yor poos bu bënn wax ju bari loo for sotti ci mu xelliku ci suuf jóg leen ngeen jëli fi Macky sal jóg leen ngeen jëli ko fi Macky est hors de la loi Macky est contre la loi Macky est contre toute ku mel nii ku mel nii war leen ko bàyyi muy contrôler ay urne urne yi Macky koy contrôler le matériel électoral Macky ko yor yi le trésor pour l'argent du pays mi ngi ci loxoom ñoom war a corrompre ñëpp mu di leen corrompre ba ci ay parrainage mu di ko jënd Macky da leen a yeb da leen yeb waaw sëb néew nekk hôpital principal wala Dantec nga bàyyi fa carte d'identité ba récupérer sam néew carte d'identité bu Macky jël ko jox ko Amidou Ba ab Guinée mu di ko wotee billahi jëw ngeen Ousmane Sonko loolu nit waru koo ndangu te képp kuy jëlale ku koy jëlale rek ku koy jëlale àndoog Ousmane Sonko xam ngeen ko xam ngi orange na xale yi jóg taal ko orange bu leen fa bàyyi dara orange fi la ñu nekk ay espion lañ suñ xalif généraux yi dama ne kenn ku ci nekk dama ne koo ma sa waxal enregistré nañ la sa soxna su ndaw la ngay wax ak moom lépp lépp dañ koy enregistré mu ngeeg orange général bu nekk Sénégal boo yëkkatee sa téléphone rek orange jël na la orange nekk ci réew mi di ko lëmbe di ko lëmbe yéen xale yi ngeen toog di xoole billahi noo ñàkk jom orange dërëm bu ngeen am orange jël ko li ngeen jënd ci ay crédit kenn xamul nu Iran bu ci bool di sàcc élection di jox Macky sàll nag yéen xale ngeen toog di seetaan du ngeen ay doomi aadama Orange sagaru téléphone la lay may boo xam ne siin lañ ko defere jël sa carte d'identité jox ko Macky Sall Macky seet ka ko neex mu jox ko ci ay problème yéen xale ngeen xam ko ngeen xam ko mun leen a jóg lijjanti ko Orange dafee war a jóge fi mu ne amul kenn ku ne ci armée sénégalaise armée sénégalaise amul je défie amul benn officier bu nekk seen armée sénégal rek bu ñemee jël sa téléphone di waxtaan ak sa jabar boo tudd Ousmane Sonko baat Ousmane Sonko mu ñemewu ko tudd dama ne ci man réew ngeen di dund xoolin li ngeen nangul Macky Sall te nangulu leen ko seen bàyyi xooli Macky Sall rek leen ko permettre te may luñ ko seen bàyyi balaa seen bàyyi wax ngeen fir gémmiñ gi Macky taxaw di day ci seen kaw te mu leen koo lijjanti ah, géej gi ngeen dugg bàyyi leen ko géej gi ngeen dugg bàyyi leen ko jàkkaarloog Macky dee ci géej gi gën a métti ah dee ci géej gi gën a metti fàq leen ay yat génn ko pale waaw lii ma gis ci parrainage bi ak lii xale yi seede ak nii orange tooge nii orange tooge Auchan Auchan yàq na suñ marché bépp ab yaabooy yaabooy sax yaabooy ña ngi koy jaay suñ yi doon waas jën sax amatuñ fon waasee jën yéen xale ngeen teg ci seen bët toog ne tot toog daan day bokk du bokk dana bokk sonko day bokk ak nangam état bi son projet son projet mooy jël sonko yóbbu ko ca Casamance sax denc ko fa Casamance ñu mel ko faa denc parce que ki la ëpp doole taxaw di day ci sa kaw boobaa ak léegi yàggante ñu koo faj bu la màkkinde danaa la lekk mu yor na ko gëmaa ah. ku ci màkkinde danaa day ci sa kaw booy nga gëm ko sëriñ si moom dong lañ ragal de ndax seeni document ak la seen maam daan wax lépp mu ci loxo yi Macky Sall te Macky dana ko génnee de dana ko génne waaw ngir yàlla xale yi réew mi yéen ko moom vous représentez quatre pour cent de cette population une génération boo xam ne amu leen cinquante ans amu leen ko kon réew mi yéen ko moom waaw seen ndey yi seen ndey yi ak yéen yéen a moom réew mi bu ngeen xoolee nag déglu seen paay yi nga xam ne amuñu solo màggat ñi nga xam ne ñoo tax réew mi torox paay yi tey bu nu xeexoon tey du ngeen xeex de nun seen bàyyi bu nu jëloon yet jàkkaarloog Senghor billaahi du ngeen xeex tey waaw ku am jom gisuma ko ci. jóg leen ngeen soowe seen bopp soowe seenum réew mu ngeen di jël gaal yi wuti réewum jàmbur réew mi lépp a ngi fi nous avons tout ce qu'il nous faut pour se développer parrainage réew mi jóg leen ci en 1960 Sénégal ëpp doole Qatar en 1960 Sénégal moo ëpp doole Singapour en 1960 na Sénégal waroon naa mën a développer bu yàgg mais ay sëriñ nekk fii kompoloog tubaab suñ alal jépp tubaab bi toon toon ni ko xooli géej gi ni mu rek tubaabe ko napp ba tey aw jën aw jën fanaanu ci billaahi noo bon ah lii ak ñàkk jom la lii ñàkk jom la jóg leen ngeen jublu ci màkk Sall jóg ngeen jublu ci li li ki na fi jóge waaw waaw taxawaay bi mu taxaw du dara la communauté européenne ñoo soxla ñoo soxla suñ alal yi ci réew mi CFA bi la France yi bëgg a continuer diñ ci arnaqué boobu ba nëgën depuis mille neuf cent quarante cinq ngir yàlla jóg leen waaw parrainage bi jaarut yoon te lu jaarut yoon dama ne parrainage bi c'est le c'est la fondation des élections c'est la fondation des élections fondation boo xam ne baaxut nga bëgg caa tegi bâtiment du daanu ci sa kaw ah est-ce que ni ko Macky Sall yi defee noonu la di jëndi carte d'identité ak di sàcc carte dante ak dem ci mordu gi jëli carte d'identité ak jël orange mu le mu muy nangu carte d'identité jàmbur di la ko jox même parents d'élèves yi yóbbu seeni doom école di joxe seen i dante dañ koy jël carte d'identité bu disponible ñu jël ah carte d'identité yi abandonné ci ci consulat yi lépp dañuy jël carte d'identité yi abandonné ci police lépp dañuy jël ah ngeen bokkoon nangu naan parrainage parrainage di di làkk làkk seen tubaab yi dee ni ci plateau yi làkk te ni xamu leen ci dara xamu leen ko ci ah bu ngeen xamoon dara dañ daañu téye Ousmane ci kaso bi te génnewu leen réew mi noo ñàkk jom maa ngi jégalu bu baax a baax tey ziara man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences yal nañ buur yàlla sutural yal na buur yàlla sutural te indi jàmm ci réew mi puis am loolu jaa ngeen jëf jaa ngin jëf jaa ngeen jëf